actu du jour lu ci gën a fës bokk na rek euh, mbas mi si suñu réew mii di euh, Sénégal euh, tey nag lu toll si téeméer ak ñaar fukk benn ñoo si yokku rek ci lim gu am lii di Covid 19 bi lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñett daal dina ñuy wër tamit tey bu weesoo loolu amaat na ñaar ñu si ñàkk seen bakkan si suñu réew mii di Sénégal danañu dem ca Yoff ba tey rek ci Covid 19 bi addu si ñaari soxna ya nga xamante ne ni dañ loon testé ñu positif si bile feebar soxna sa nga xamante ne ni dafa wan loot ak ab xale bu jigéen euh, bu am fukki at ñoom ñooñee nag dañu leen nag wax rek ñu toogandi seen kër yi euh, ndaxte rek amuñu fa ñu leen euh, def donte sax dañoo amee lii di Covid 19 bi. depuis ba njiitu réew mi Macky Sall xamle rek ni mën nañoo delloo si rek euh, doomu Sénégal ya ñàkk seen bakkan ci Covid 19 bi biti réew euh, ñii di sénégalais ya nekk ci diaspora bi rek ñu ngi euh, nekk di amal seen i pexe ñenn ñi sax dem bay sulli rek seen néew ya ñu jotoon denc ngir delloo si ko si seen réew mi di Sénégal ab directeur société bu mag lool la ñu daal di rek teg loxo ak ay client wam moom moomee nag lu waral ñu teg ko loxo du leen la mu doon. defar ay autorisation de circuler ñu dem euh, Touba addu ci mbirum Bara Touré ma nga xamante ne nii rek dañu ko yóbbu yóbbuwaat euh, ca fa mu rendee woom doomam ya ngir euh, def loo ko wat lii di seen ba waaye nag loolee tën na ko tëj bu loolu weesoo xaritu Bara Touré ak ay soxnaam daal ñuy def rek addu lay wax sax si li ni mel la ñu si xamle yëpp daañu leen ko jottali danañu dem tamit Rufisque gannaaw rek ab commerçant ba nga xamante ne benn agent mairie ba moo ko faat euh, ñi di euh, marchand ambulant yi dañoo dal di rek euh, dàkke agent municipal ya ba ca géej ga mu doon lu doy war loolu yëpp bu yembee ñu toftal si tàggat yaram ak làmb danañu wax si mbirum Balla Gaye de guy gi yi tamit ci kàddu ya nga xamante ne ni Modou Xarañ loo yëkkati na ko ci waajuram góor bu ci waajuram bu góor bi nga xamante ne ni moom moo làkku li moo ciy gën a fës ñu yaatal nuyu nañ leen ami internetu Dakar Buzz Covid 19 bi si suñu réew mi di Sénégal lañu koy dooree eh, tey nag junne ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom test la ñu amal eh, ci eh, yooyee nag lu toll si téeméer ak ñaar fukk benn ñoo si positif téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dañu leen wàll ñaar yi di ay cas communautaire nga xam ne rek nemmeeku nañu benn ca Géejawaay ak benn ca Touba ñeent fukk ak juróom wër nañu tey am na rek juróom benn grave yoo xam ne ni juróom yaa yaa ngi eh, ca service réanimation bu hôpital principal eh, benn ba ci hôpital Fann eh, bu loolu weesoo yeneen ñaar ñàkkaat nañu seen bakkan si mbas mi si suñu réew mi di Sénégal kenn ki góor la amoon juróom fukki at ak juróom-ñett génne woon rek àdduna këram ca Parcelles Assainies prélèvement yi ñu def si moom moo firndeel ni rek dafa ame woon lii di coronavirus bi keneen ki tamit góor la am juróom benn fukki at dëkk ca région bu Thiès moom nag mi ngi génn àdduna ni kii tey si àjjuma ji ba 6h50 minutes jotee uh, ca hôpital principal bu Dakar uh, ba ñu mbas mi ganasee ba tey lu toll si ñaari junne ak ñetti téeméer ak fukk ñoo fi jot am lii di feebar bi uh, juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukk faj nañ leen ba ñu wër ñaar fukk ak juróom ñàkk si seen bakkan mu desandi rek junne ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yu ñuy traité. Euh, ba tey ci Covid 19 bi waaye bi yoon ca Yoff ak ñàkku ba place bu ñu rek euh, def ña amee lii di coronavirus bi ñaari soxna di ab jigéen euh, bu wonnu ak ab bu jigéen bu war a am rek fukki at dëkk ca quartier bu Mbengeen la ñu testé ñu positif ci coronavirus bi ba noppi daal di leen yóbbu seen kër ngir rek ñu fanaan fa gannaaw ba ñu leen yóbboo ca hôtel Océan fekk rek lépp débordé soxna su wonnu lot jot naa xamle sax ni agent sanitaire yi ñëwoon nañu fa fukki fan ak ñett euh, si weeru mai bii ñu nekk ci ngoon xamal leen ni rek euh, gannaaw ba ñu leen testé euh, dañoo positif si coronavirus bi dañu leen di yóbbu rek ci ab hôtel bu ñuy wax hôtel Océan ñu daal di rek dem ñu yóbbu leen si ambulance laata rek benn pas di leen di rejoindre si yoon wi waaye ba tey bu ñu sukkandikoo si soxna sosé woon lot à la grande surprise dañu leen yóbbuwaat seen kër yi ndaxte rek hôtel ba amul place ba ñu leen def ba noppi conseiller leen rek ngir ñu fanaan seen kër yi laata ñu leen di conseiller ni rek dinañu ñëwaat si ëllëg sa di yemoo ko fukki fan nag ñeent si weeru mai bi ñu nekk ngir yóbbu leen euh, beneen hôtel bu ñuy wax hôtel King Fahd Place ngir rek euh, ber leen fa annoosub delloo si néewub doomu Sénégal ya ñàkk seen bakkan si Covid 19 bi daal nuy jural ay idée Sénégal yu nekk ci diaspora bi depuis ba ko njiitu réew mi Macky Sall xamle ñenn ñi sax pare nañu tey ngir sulli rek ñu jotoon a denc ngir indiwaat leen fii si Sénégal denc leen fi bu ñu sukkandikoo si suñu naataango euh, ya nekk ca l'observateur euh, démb si alxames gi El Hadji Sakho njiitu kuréel gu ëmb rek fukki junneek juróomi membre bu ñu sukkandikoo si moom ca Paris daal dinay àddu si mbirum Nicolas Mendy bu Casamance euh, bu ñàkk waajuram bu góor si Covid 19 bi ñeenti fan si weeru avril nga xam ne rek la mu bëggoon waajuram bu góor mooy rek heure bu génnee àdduna ñu delloo si ko rek fa mu cosaano ca Casamance loolu yéen nag Nicolas dafa ne rek euh, da ko war a respecté euh, bu ndaxte bëgg-bëgg waajuram bu góor la bu jàmm sax amee bu ñu sukkandikoo rek ci njiitu seen kuréel googee semaine bi ñëw dana mën a rapatrié illa Ila delloo si tranquillement néewu waajuram bu góor boobee ci Sigicoor moom Nicolas jëw bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi ak ay équipam daal di nañuy dalal euh, comité de suivi wu mise en œuvre opération euh, force Covid 19 mu doon nag ab occasion euh, ngir def point si situation d'exécution financière bi si cadre riposte bi si montant yu comité bi jot ak si compte don yi nga xamante ne ni viré nañu montant yi ministère des finances et du budget euh, si boobu les rencontre nag daal dinañuy évaluer si dispositifu riposte bi bu ñu sukkandikoo si Abdoulaye Diouf Sarr euh, crise Covid 19 bi occasion de capitalisation la euh, te rek dañu ko war a préparer bu baax ngir avenir ma wax si tëjub jumaa yi nga xam ne rek gannaaw ba njiit réew mi Macky Sall waxee ni rek mën nañoo ubbiwaat lii di jumaa yi am na rek ñu xam ne ni dañuy wëjandi di tëj seeni ba juma nga xam ne bokk na si sax Serigne Babacar Sy Mansour oustaz Alioune Sall nag daal dina si àddu di xam le ni rek bu dee ñoom seen jàkka yi e, jël seeni ba matukaay dina si yomb ndax ay jàkka yu ndaw la waaye bu dee jàkka yu mag yi e, jël si rek ay matukaay du doon lu yomb wa rek ñëpp si jàpp mu mën a yomb lu ñeel nag Serigne Babacar Sy Mansour oustaz Alioune Sall nee na rek e, Serigne Babacar Sy am na rek danger bu mu gis moo tax mu doxalee ni ni mel bu ñu sukkandikoo ci information yu bàyyeekoo ca libération parquet bu Dakar daal dinay demander ouverture information judiciaire euh, ngir association de malfaiteurs faux et usage de faux et violation de la loi sur l'état d'urgence euh, gannaaw ab enquête section de recherche si euh, ab trafic autorisation de circuler si diggante région yi benn directeur général benn société ak ñenn si ay client wam jot nañu leen leen arrêté si li lépp nag mi ngi bàyyeekoo si ab particulier bu ñu jàppoon rek mu yor autorisation de circuler si diggante Dakar ak Saint-Louis analyse document bi nag tax na ba gendarme yi relevé lu wér lu méngoowul si identité ku signe boobule autorisation laata ñu koy jàpp ka ko jox rek boobule autorisation di benn administrateur société bu ñu ràññee lool ba enquêteurs yi sax sax si kër directeur société boobee fekk nañu fa ay autorisation yu bëri lool ak même caractéristiques yi ak tamit rek carte d'identité et client ya ma dem Touba addu si mbirum Bara Touré mu ren di ñaari doomam euh, yu góor ya euh, gannaaw nag ba mu njëkkee euh, xamal enquêteur yi ne moo ren ay doomam waaye xamul lu ko ko defloo Bara xamlewaat na ni rek daa jaawale doomam yi ak ab ginaar bu mu waroon defee sacrifice ay soxnaam sax daal di nañuy def ay témoignage maanaam addu euh, si li bu ñu sukkandikoo si source yi euh, baara daa soupçonné woon rek ay soxnaam euh, ni dañuy njaaloo ba tax rek mu jël décision vengé wu dal di rendi doomu ku si nekk si ñoom ba loolu weesoo xaritu baara tamit xaritu benn bakkanam sax daal di nay addu si li moom mel moom nag charlatan yi rek la joxoñ baaraamu tuuma ba loolu weesoo baara Touré daa bañ a def rek réconciliation reconstitution crime yi euh, tey jii sax si suba si lañu ko war a déféré euh, si kanamu tribunal bu jurbel waa dikk bouclé nañu rek enquête bi mercredi euh, procédure Bara Touré bi dinañ ko rek bouclé sans reconstitution bi gannaaw ba bu njëkk bi laajee mercredi ndaxte ba ñu ko yóbboo fu mu rende ñaari doomam yi jox ko rek arme ngir mu jouer scène bi daa dugg si néeg ba rek nekk rek tàmbale di jooy ak yuuxu di anarier mënula fexe rek ba def exercice ba donte sax tenté nañu ko lu bëri laata procureur bi di wax rek ngir ñu bàyyi ko convaincre Bara ngir mu dérouler li ni mel niki tey xaw ma nag ba xam ndax dana ko mën a motal am déet cari Rufisque la jëm gannaaw julla bu fa ab agent mairie ba euh, jam paaka ba mu ñàkk bakkanam euh, loolee merloo na rek ba futtu ñii di ambulant ya fa nekk euh, tax rek euh, ñu taxaw di jëflanteeg ñoom euh, ñoom ñooñee sax di ambulant ya nekk ca Rufisque dañoo dàkkee rek employé municipaux ya di leen di mbugal ba ñu daw ba dugg sax sa géej ga boobule vidéo mën ngeen ko suivre si suñu site www point dakarbuzz point net tàggat yaram ca géejewaay laa koy dooree ak rek mbirum Balla Gaye 2 ak guy gi dëgg la ni rek amul intimité ba nga xamante xamante ne ni na si seen diggante def na ay weer waaye nag eh, si diggante Balla Gaye ak guy gi amoon na centaine distance eh, si ba ñuy amal émission encore plus bu Modou Mbaye eh, ca 2STV nag la ñaari star yi waxtaanee lépp si seen biir mbirum roi des arènes Modou Xarañ Lo laa koy tëjee moom nag daal nay def ay témoignage si waajuram bu góor bu wàññeeku moom nag daal dinay dikkaat si relation bi mu amoon ak waajuram bu góor góor bu génn àdduna def na une semaine euh, si noone Modou Lo triste lool si ki mu ñàkk euh, di xam le ni rek bay góora kenn la woon si moom euh, comme diggante papa doom rek mu am fum leen féete woon ba tax na rek dañuy jëm rek waaye waajur moom kenn rek amul seen fay mu am fu mu tolloon si moom laata mu koy ñaanal moom Modou Xarañ Lo ñu ngi koy ñaanal tamit rek yàlla may ko xolub muñ